mi ngi noonu police yaa ngi daw police yaa ngi daw à Thiès la à Thiès police yaa ngi daw mi ngi noonu police yaa ngi daw wala mi ngi noonu police yaa ngi ni di daw c'est à Thiès en daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw waaw police yaa ngi daw police yaa ngi daw police yaa ngi daw dàq leen leen police yaa ngi daw waaw police yaa ngi daw police yaa ngi yaa ngi daw police yi ñu ngi ngi daw daw na si biir kër na génn na génn na génn na na génn am na ñeneen ñu jàppale bi am na ñeneen ñu jaar fii ana police yi ana police yi ana police yi ana police yi police yi jaar nañ ni di daw imam déglu police yi daw nañu police yi daw nañu làqatu nañu